rek daanaka ci politique ngay tàmbulee te itam xaw ngaa mën a yem ci politique yaa ngi gis ne ci ay bis gii euh, dossier bu soof boobu nga xamante ne mi ngi ci réew mi te yàgg fi te war a jeex gars yi yëngalaatoon nañ ko ba ñaari jigéen ñi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku bokkoon nañ teew ci bureau doyen des six muy ki nga xam ne mooy aji saar ak Ndeye euh, Ndeye Khady Ndiaye nooy jàngate loolu waaw xanaa jaajëfal la ci encore mm-hmm. moo di ñu fexe ba sunu attekat yi mm-hmm. ñu wóolu leen ci suñu dossier yi. Mhm. ñu fexe ba wóolu leen suñu dossier yi. waaw mhm. ñoom. Mhm. ñooy fexe ba ñun ñu wóolu leen ci suñu dossier yi. bu ñu fexe ba ñu wóolu leen ci dossier bu ñëwati ñu wóolu leen waaw te bu ñu leen ci wóoloo rek daal di noppalu. bu leen ci wóoloo ñun ñëppay noppalu. kuy dem. daanaka sa avocat moo lay gunge. dëgg la waaye bu ñu leen wóoluwul nag. dëgg la loolu mooy ni ñoom ñoo ci jàppal bàyyil jéem. wallaay jéem a jéem a. Euh, ndaxte gaa yi. kon ñu def ci li ñu ci war a def. waaw. yàlla yàlla na yàlla nekk na. amiin yaa rabbal bi rek. amiin euh, dossier boobu Oustaz ni ma ko waxee léegi loo ci wax maanaam ni ma ne dossier bu soofu boobu maanaam soofu la. Euh, comme ni lu ko raw waaw nga xam ne moom doo xam nga doo kenn du ci mën a ñàkk bañ a wax kenn du ci xam loo wax ba pare mu ne fi lu ko raw. Hmm? soof. waaw ah. ci soof donc kay. seet <laughs> waaw moom kii maan la de. ak xam loo xam ne fi nekk nii dugg na ñaar lu atam. waaw waaw. mars bi weesu. Hmm. bi la trois ci la amoon ñaari at. Hmm. la amoon am at. mu hmm. ngi dugg ñaareelu atam. dëgg la de te kenn xamul fu muy àkk ji. wallaay wallaay wallaay. waaw oustaz ñi ci média yi di coow rek nag nga xam ne ñoom kenn ku nekk yaa ngi jaay xam-xam boo ci am kenn ku nekk di nettali ay yëf nga xam ne la xew ci bureau doyen de si sax gars yi dañ lay nettali lépp ba mel ne ñoom dañoo fekke woon lépp ba mu àgg loolu itam jàppoo ne mën naa indi ak xajamal ci àtt bi. loolaa jara daw sax. xew-xew bu xew te fekke woo ko. rawatina xew-xew bu ñu tudd góor tudd jigéen. Mm-hmm. maa yakunu lana an natakallama bi hada. Mm-hmm. maa yakunu lana an natakallama bi hada an natakallama bi hada. wallaay ndeysaan loolu alxuraan waxoon. Mm-hmm. yaroon ñu ca. moo tax ku cee waxee da ngay jaar ca roqus la jaar ci roqus la waaye wax ci yëf yi nag moom. soo waxee ne kii a tooñ. ñu ne la déedéet. dëgg la soo waxee ne kii a tooñ. ñu ne déedéet. kii am dëgg kii amul dëgg. dëgg la lépp. maa yakun lana an natakallama bi hada aaya la ca surtu nuur wallaay ndeysaan am na solo oustaz jërëjëf xam naa beneen tomb ci actualité bi day ñeel élection yi nga xam ne moom lañ dëgmal